ñooy suñu ndey euh, loolu loolu la yàlla def mm-hmm. Mm-hmm. donc ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar ñëpp mm-hmm. euh, di siyaar ñëpp di siyaar waa réew mépp euh, di dellu siwaat ci li nga xam ne tudd nga ko léegi muy conflit bi nga xam ne moo am tey diggante Russie ak Ukraine di ñaan yàlla sotti ci ndoxum jàmm ndax ay moom kenn du ko seetaan bu loolu jàll nag je pense que danañu ñëw ci volet économique bi bien sûr mais dafa am benn jeunesse bu ndaw boo xam ne mënu ca ñàkk ndax buñ ne Russie ne Ukraine en réalité Russie la ñuy wax union européenne ñoom France ak ña ca topp bu loola jàllee aussi autant euh, dafay daal di ñëw mooy li li jàll Europe ba noppi euh, dugal ci Amérique ak yeneen ak yeneen mm-hmm. waaye nag boo ne Russie aussi euh, doo mën a yem ci Russie parce que Russie dafa bokk ci li ñuy woowee l'OCS l'organisation de coopération de Shanghai bi nga xam ne moom ak Chine ak ñoom Inde ba barki démb bu ñuy invité Iran pour mu dugg si seen Iran mm-hmm. donc dañu bëgg wax ne mbir mi maanaam géopolitique internationale la parce que ba ñu ñëwee 2019 ñu ne dafa am am benn euh, lu xew ci àdduna te ñu doon gestoog euh, saytu euh, gis nañu ko ñi nga xam ne ñoom la yàlla dogal mu mel ni ñooy ñooy dogal aussi wala ñuy doxal ci wàllu saayar yu fi àdduna ak yu fi politique mm-hmm. donc ñoom seen wàllu bopp mu am loo xam ne dañ ko doon wooye le nouvel ordre mondial mm-hmm. buñ ci yegsee nag dafay fekk maanaam carte yëpp dañ koy séddalewaat carte yi buñ koy séddalewaat nag ku ci ne yaay natt sa doole ba xam fi nga mën a taxaw ndax pôle yooyu yëpp a taxaw donc dem pôle yooyu a taxaw nag nañu xool fan la dëgg fan la dëgg féete mm-hmm. waaye surtout fu doole féete ndax aussi mukk ne les états n'ont pas mais des intérêts ku ci ne intérêt lay défendre donc Russie la ko tax a jóg d'autant plus que ñoom moom ak Ukraine ñoo bokkoon en fait URSS l'empire soviétique mhm. donc la ko tax a jóg jàpp na ne lépp lu baax te nekk biir Ukraine ñoom ñëpp ak les Ukrainiens les euh, les Russes ñoom ñoo àndoon tabaxandoo ko donc du jaadu ci ñoom ku mel ni Poutine dafay jàpp na nag comme Union européenne dafa ñëw lëkkaloo ko OTAN ndax mënuñoo jël décision boobu au niveau des Nations Unies ndax euh, Russie ak Chine ak ñeneen ak ñeneen africaine dañ fa am veto c'est le moment de dire aussi ñun ñu réclamer en tant qu'africain ce qu'on appelle un siège permanent au niveau du conseil de sécurité loolu ñu ci yebal ki nga xam ne yàlla dogal na muy sunu mbokk di président de la république Macky mais surtout muy président de l'union africaine présentement pour loolu ñun ñëpp en tant qu'africain ñu nangu bokk ndey bokk bàyyi te réclamer loolu mais bu ñu ñëwee nag ñu ne la diggante Russie mhm. a soubassement yëpp souvent économique soubassement économique lay gën a mën a am ndax euh, comme li américain naan euh, economy leads politics donc économie euh, mooy diriger politique plus ou moins donc noonu la demee donc guerre bi lu mu mën a demee daal ay pole la yu koy xëccoo ñun en tant que africain nag la nga xam ne moo ci suñu wàll et je vais toujours insister ci ki nga xam ne mooy le président Macky Sall muy président UA fi mu toll nii ndax turu Afrique la ñuy waxee pour que moom ci boppam ñun en en ce qui nous concerne mm-hmm. ñu li nga xam ne moom la ñuy fait la neutralité active neutralité active nag du point de vue diplomatique c'est le véritable terme bi ñu utiliser en diplomatie pour tout simplement dire diplomatie maanaam doo far ci kii doo far ci kaa mm. mais booy da doon ki nga xam ne yaa leen di fexe invité mm. ñu mënoon leen a invité ñi nga xam ne ñoo seq coow li parce qu'on ne peut pas être jugé parti président Macron gis nañ ko mu dem wax waaye négociation mënta aboutir ndax dafa am fu mu féete di défendre pôle union européenne wëlbatiku di défendre OTAN kon kooku mënuta atte dara mm-hmm. ñi ci des nag te a atte mooy ñun mm-hmm. suñu wàllu bopp ndax ñun comme suñu yoon newu ci mais kenn du ne su ma yoon newul ci ay mm-hmm. donc da ngay xool noo mën a dajale ñëpp ngir ñu mën a waxtaan ndax bu doon cent ans aussi ci table lay mën a mujj bien vrai que neutralité baax na vu que Sénégal c'est un pays émergent mais donte sax neutralité boobu bu amee bu yàggee dinañu jig ñun sur le plan économique. waaw guerre moom baaxul ci kenn de toute façon boo waxee tey bu dee euh, génn nañ la côté militaire bi nga xam ne moo tax Russie di teg doole jàpp na moom moo jiitu parce que mooy première puissance nucléaire avec plus de en tout cas 1500 têtes nucléaires officiellement Amérique yor 750 têtes nucléaires dafay jàpp ne moom mën na imposer en fait li nga xam moom la bëgg du point de vue économique nag boo demee euh, Ukraine Ukraine principalement boo xoolee mooy premier producteur en fait euh, blé wala exportateur comme on peut dire donc loolu blé bi fondamentalement bu loolu jàllee aussi li tax mënut a ñàkk répercussion ci yeneen économie yi mm-hmm. boo jëlee comme Russie nga dem comme Europe parce que euh, économie en général day interlié waaw day interlié liy jógee fële ndax ki lay jaay si bu bu ko mënee yombal ba nga mën ko jaayaat c'est parce que moom xëy na dafa yomb ci moom mm-hmm. boo demee comme dëkk yu mel ne Europe 40 pour mm-hmm. euh, jógee boo demee en fait euh, produits pétroliers les produits pétroliers yi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo foofu pratiquement 30 pour cent mu ngi jógee Russie mm-hmm. donc tey ñun bu ñu war a dama la jox benn exemple bu fekkee da nga am bateau sucre maanaam suukar boo xam ne mu ngi ñëw donc énergie bu bëri moo koy déployer moo koy déplacer mu jóge fa mu jóge mën a ñëw daanaka bu carburant bi yokkoo automatiquement da ngay gis ne dafay feeñ ci li nga xam ne moo njëgu suukar bi day feeñ aussi ci njëgu pétrole bi day feeñ ci njëgu gaz bi bu fekkee ne nag feeñul ba feeñul te ñu jàpp ne sax mën nañ koo ñàkk a bu bu dul xanaa mu tiire en longueur parce que aussi depuis très longtemps quand même dëgg la suñu état yi ñu ci bëri ñu ngi dund ci wàllu maanaam taxe ak yu dema noonu mais je pense bu fekkee loo xam ne yàggagul tireegul en longueur quand même li ñu jotal dajale ci alal jot na aussi ñu fexe ci amortir li nga xam ne mooy choc bi ba nga xam ne nit ñi seen bopp nu ko yëgee noonu parce que guerre psychologique la d'abord ñi ñu bëgg a gëmloo ne danañu xiif danañu mar te mën naa ñàkk a deme noonu a beaucoup de yoo xam ne mu ngi dugg dans nos en tout cas dans nos bu ñu ko jëlee avec la banque centrale surtout dans le cadre de la CEDEAO sinon dans le cadre de l'Union africaine ñu jéem a nu ñuy def je pense que wa même ci Sénégal war nañ koo mën a ñàkk yéege noonu même si nag dana am répercussion ci wàllu état bi waaw tey ñi gis ne aussi maanaam tey euh, Sénégal seen stock ay 3 mois la war a durer mm. euh, tey jii nii 3 euh, mois ñëpp xam nañu bu xasee ba jot rek te guerre gi arrêté wul loolu dana tax koom-koom gi neex melu su boobaa dinañ li ñuy wax inflation maanaam njëg yi dinañ yokku yokk bu danañ dinañ jommi te ñu gis ne euh, actuellement am na hausse des prix des denrées alimentaires donte sax ministère du commerce bëgg na euh, mbiri prix yi wàcc mais jusqu'à présent mënut te wàcc <coughs> donc tey guerre boobu perdurer inflation bu extraordinaire moo war a am waaw loolu toujours c'est psychologique et je pense que c'est le aussi ñun suñu wàllu bopp ñu jógee ci la ñu woowee l'esclavage mental parce que dañoo bëgg aussi di toppe di lekk ay mburu te fond nekk fii hmm. di topp te mburu boo ko xoolee euh, dugub mën na ko defar hmm. mboq mën na ko defar ñebbe mën na ko defar te am na four de dernière génération yoo xam ne euh, loolu daanaka bu ñëwoon tukulóor ak laay mën na ci bëgg te ñoom laa ci gën a ñoom laa ciy gën a tiital fi mu toll nii jooy ji day bari pense <laughs> déet déet mun nga jël exemple sa bopp nag xarit yow <laughs> dama doon waaj a yoole de. jeex na mu ngi mu ngi noonu ak fonde ce qui est très bien ce qui est très bien donc ñun suñu wàllu bopp aussi foog ñu bañ a dépendre ci yenn yi te comprendre déjà. bu ñu waxee le nouvel ordre mondial li ñu xamoon démb ak barki démb lu bari dafay daal di soppeeku. Mhm. c' le moment aussi yaa ngi dégg ku mel ni le président Macron mu ñuy prédiral na dina am famine bu am Europe dina am famine bu am euh, Afrique. Mhm. je bien que ñun yéene leen xiif mais ñoom bu ñu doon xiif nañ xiif seen xiif mais ñun loolu taxul ñu xiif quand même. Mhm. bu parce que boo ne 18 mois. espace su 18 mois je pense nawet a ngi fi ak yeneen ak yeneen ak yi nga xam ne hors saison la donc c'est le moment ñun suñu wàllu surtout nos gouvernants ñu jéem jëm en fait dans ce sens et loolu bu ma ko waxee nag on va parler de l'autosuffisance en tant que telle mm-hmm. mais au-delà de l'autosuffisance alimentaire il faut aller vers ce qu'on appelle la sécurité alimentaire au sens propre du terme mm-hmm. loolu ku ko wax nag da nga li Thomas Sankara faut quand même tey boo xoolee ci biir dëkk bi c' est vrai il y a beaucoup d' efforts en train d' être président Macky mu ngi inauguré fii di inauguré fa ce qui est très bien en termes d' mais dafa baax nag ñu ci en fait des unités en fait de en fait de transformation au sens propre unité ou transformation maanaam industrialisation dama la jox exemple Sine euh, ma sant Diouf sant nde euh, sant Faye ci Baye dëkk Jaxaaw Sine donc je sais de quoi je parle mm-hmm. fu de transformation tey boo auto autosuffisance alimentaire je pense conservation bi mooy le problème fondamental boo demee en Casamance pareil et c'est le moment aussi de lancer un appel pour que ñun ñëpp sago yi dellu soit ndax euh, dara ji benn la ñun ñëpp bokk afin que jàmm ji mën faa yaatu ba nga xam ne ñun ñëpp dañu nangu bokk ndey bokk daay pour tout simplement euh, mhm. aller tout simplement vers mais monsieur Faye Mamou il faut que nag bu ñu toogee ba ne trois mois buñ ko moytandikuwul dinañ am ay jafe ci wàllum blé bi nga xamante ni euh, dañ ñu koy andil fii ci Sénégal ñu dem ba guerre bi tàmbali ñu ne léegi mën nañu jël ay résolution pour résoudre résoudre cela est-ce que c'est pas un peu trop tard bon je dirais ce n'est jamais trop tard mais même si nag li nga souligné loolu c'est important parce que ba ñu war a jël en fait le devant dafa yàgg ndax lu tax tey ñuy produire gerte ak dugub comme je dis may séeréer cent pour cent di ca donc je sais am na solo mhm. mais nag quand même le problème mooy euh, tey boo delloo ci blé li tax bu mbuur mi yokkoo li jara wax même du point de vue politique les acteurs politiques n'en parlent pas parce que en réalité loolu dafa bokkoon ci ce qu'on appelle le pacte colonial hmm. daf ci dañu tere woon maanaam ñu def production de masse ou blé nga xam tey mën nañ ko fi mën nañ ko fi béy waaye dañ ñu koo tere woon donc je pense ñun waruñoo mën a toog depuis lors parce que boo jëloon tey ay tant d'hectares nga di ci béy ceeb wala béy dugub wala béy gerte di nga ci def effort yu bare par contre boo defoon même effort yi pour produire blé da xool di nga récolter trois fois maanaam sa économie dina dox trois fois donc c'est juste pour dire. Mhm. certes euh, am na loo xam ne dañu jànkonteel moom mu nekk suñu kanam mais je pense que mënuñu trouver benn excuse parce que déjà y a problème kii est devant nous il va falloir ñu contourner ko nañ koy mën a contourner nag mooy sart am na loo xam ne mel na ni lu tardé mm. mais tardégul parce que espace su espace en fait 18 mois la ñuy wax trois mois yooyu bu ñu ko waxee aussi c'est le moment les gouvernants aussi ñu wax leen loolu boo toogee que énergie mooy doxal àdduna bu ñu demee ba baril bi wàcc à un certain prix quarante dollars wala plus ou moins c'est le moment nga jël au mois nga am nga am benn stock boo xam ne plus ou moins da nga ko mën a conserver mais actuellement gis nañu prix baril le pétrole bi euh, mu ngi près de cent trente dollars donc euh, ce qui prouve que actuellement baril pétrole bi day gën yokk parce que ñëpp xam nañu euh, Russie ak Ukraine ñu ay géants lañu ci domaine boobu donc tey jii nii ñëpp xam nañ ne euh, plus guerre gi di yàgg plus dana indi loraange ndaxte pétrole fu bu yokkee rek day feeñ gaz bi dana manqué euh, courant bi dana cher. waaw donc loolu daf ñuy invité waat tout simplement ci benn côté en fait résilience bi nga xam ne moo nu war parce que mënoo wax ne tey en fait. Euh, pays sous-développé nga plus ou moins on prend un terme beaucoup plus manichéen que plus ou moins pays émergent des histoires comme ça mm. mais voilà euh, pays en voie de développement nu ñu neex waxee ko dañuy atténuer affaire bi mm. mais ce qui est sûr faw mu am benn résilience boo xam ne daanaka danañu ko am ci suñu économie parce que tey boo ne tey courant ci boppam. bu mhm. fekkee ne ñun amuñu énergie nucléaire comme lu mel ni Russie mel ni France mel ni Amérique ak Ukraine énergie nucléaire la xëccoo. Mhm. tey énergie boobu boo demee tey Russie teg loxo ci centrale bi gën a mag biir Europe li ñu naan la centrale de Japorogie la ensuite la centrale de euh, en fait Tchernobyl. Mhm. donc ñun comme utiliser wuñu en fait te am uranium un peu en Afrique te amuñu énergie nucléaire di utiliser tout simplement carburant bu ñuy làkk pour am courant c'est le moment aussi ñun ñu anticiper ci loolu. ménage fu mu ci mën a doon aussi ñu mën a en tout cas euh, rendre plus ou moins raisonnable mhm. utilisation bi nga xam ne ñu ngi koy def ci wàllu sunu ci ci ci wàllu le solaire est donc l'énergie xam nga naturelle voilà donc tout est donc c'est le moment aussi d'aller vers vers cela. est yow tey jàpp nga ne autorité mun nañ ko def parce que euh, corona bi ñëw na ñi gis ne ñëpp yaakaar ne wii euh, moment guerre lañ nekkoon jamono jooju ñi ne léegi Afrique war na euh, war na comprendre ni monde bi léegi bopp sa bopp la il faut que ñuy am autosuffisance alimentaire lu ne waxoon nañ ko mais taxut gis nañ ni amuñu benn yokkute ba nga xamante ne am na ci diggante bi donc yow yaakaar nga ne ni autosuffisance alimentaire bi ngay wax ak ay énergie solaire mun nañ ko ko réaliser ici au Sénégal. bien sûr parce que tout est déjà là bu fekkee ne à quatre vingt ak entre et quatre vingt dix pour cent de soleil la ñu am plus ou moins boo ko xoolee suñu dëkk yëpp c' est bien possible il faut juste de la volonté politique ba loolu jàllee bu ñuy wax corona des histoires il faudrait quand même mooy esclavage mental bi ñuy wax parce que du luñ jóg rek yóbbaale ñu. daanaka loolu ñu doon wax yëpp fondamentalement c'était tout simplement pour lii ak si tey ji hmm. waaw dëgg la feebar feebar la feebar am na loolu mais feebar yàgg na ci àdduna am na lu ko gën a yéeme je pense fondamentalement ñun ñoo war a fula gu toll ni ki bu kenn xamul li ngay jar nga xam li ngay jaayee sa bopp pour que hmm. prochainement lu mën di xew dafa mel ni lii xew guerre psychologique bi ñu bëgg imposé imposer bëgg a wax forcément ne prix yi dafa yokku mënut a nekk peut-être en tout cas warut nekk dans l'immédiat parce que je pense que dans nos états am na loo xam ne effort boo xam ne mën nañ ko def je vais donner un exemple d'abord il faut commencer par une chose xam naa ci lañ jëm bu dee Sénégal ay élections législatives ak yu demee noonu il faut enlever le cumul de fonction tu peux pas être maire et ministre tu peux pas être député maire des histoires comme ça mm-hmm. parce qu'il y a tellement de Sénégalais yoo xam ne ils sont capables tout simplement d'assumer ces fonctions bu ma ko waxee ci ñii ci ñaan ak Sénégal lay wax ñun suñu gaal suñu réew la wax nous ne pas mais li ma bëgg wax daal fondamentalement am nañu capacité boobu am nañu capacité tourner wu vers cela il faudrait ñun suñu wàllu bopp aussi ñun mënuñu fee nag tout le temps. ñuy topp ci ay yoo xam ne saa su ne mën nañoo changer lu la neex. pour mhm. seen intérêt bopp parce que bul fàtte ne ñu ngi Russie ak Ukraine mais boo ko xoolee muy Amérique muy France moom fu mu mën a doon ci même yeneen dëkk yi. boo gisee loolu ñu ci bëri guerre bi arrangé leen parce que ñi nga xam ne jotoon nañu am stock bu bëri ci wàllu pétrole bu yaa ngi koy wax léegi bu fekkee dañu jógee bari baril bi jógee en fait entre quarante depuis quarante dollars. Mhm. bëgg a yegg ba ba boo xoolee ñi nga xam ne c'est des businessmen au sens propre du terme ñooñu dañuy profiter ci guerre boobu entretenir guerre boobu et surtout entretenir cette guerre psychologique bi nga xam ne ñun ay victimes ñu ci bëgg a def mais suñu wàllu bopp désormais ñu jël suñuy décision ba nga xam ne bu xewatee parce que nous sommes dans ce qu'on appelle le nouvel ñu xamoon démb ak barki démb lu ci bëri day soppeeku waaye bu ñu nangu nag ku soppi suñu dundalin suñu doxalin lu dul ñun suñu wàllu bopp ñoo ko. ñoo ko assumé léegi Gomis dafa am li mu ci euh, yokk. man rek la. Euh, euh, mhm. est-ce que tey jii maanaam suñu habitude alimentaire maanaam kii wuñu sonn lañu suñu habitude parce que yaa ngi koy wax sànq ay ñoomin fondé ay ñoomin cere mhm. dégg nga ñoomin ñoom ñëpp léegi ndax est-ce que du loolu tey jii Euh, maanaam moo ñu sonal ba tax na fu mu nekk nii bu nit yi bu bu bu bu bu tubaab yi amee. Euh, problème problème rek ñun ñu am problème. mu répercuté effectivement loolu c'est un programme boo xam ne ñoom dañu ko liggéey. donc mm. ñun bu ñu wax tubaab yi nous ne sommes pas du tout racistes ndax ñun ñëpp ay nit la ñu. Mm. mais quand même il faut dire les choses telles qu'elles sont. ba ñuy ñëw ba ñuy wax décolonisation au sens propre du terme foofu la waroon a njëkk a tàmbalee. parce que boo xoolee bala nga ko doon xam ngay defa ngay jaay jël dàll yi ñuy jëlee ngaay ak pochette yaak yu dama noonu teg ko fi di jaay man ma jóge fu ma mën a jógee muy Amérique muy Europe fu mu mën a doon ñëw jëlee ay saak boo dama leen di bañ a publicité parce que mhm. en fait je suis je suis aussi management et marketing donc du ma leen tuddal su bos ñeme naa ko tudd mais boo jëloon yooyu nga ñëw teg ko ubbi boutique daanaka non seulement yaay gën a jarle mais ah, bon plus ou moins long terme yow yaay ëpp xaalis mhm. donc loolu aussi suñu mentalité la ne donc tey c'est le moment euh, je le disais souvent à mes étudiants depuis Ziguinchor que ce soit ici au niveau du du CHEP euh, en classe de MBA man leen tey boo xoolee Sénégal ñun ñu produire mboq di produire en fait yeneen i produit mm. mais tey tey tey pourquoi pas mënuñu am sax une pizza sénégalaise au sens propre du terme. Mm-hmm. mais on préfère nga dem jëlee fële pizza ñu defar ko dugal ko ci glace yëpp ko ci ay kii andi ñu ko ñëw di ñu ci sottal yu kenn xamul xeetu soos yoo xam kenn xamul. Mm-hmm. ñun ñëpp ñu toog di ko lekk moo tax wératuñu. Mm-hmm. mais tey par contre boo jëlee mboq mën nga jël tuuti blé bu dee mënoo ñàkk blé. nga mélange ko ci mais yeneen ya ca des ñoom xeeti tamaate ak xeeti ginnaaw bu ñu baxal daggu détails yooyu yëpp. ay bi am ni mu yaatoo avec toute nga xam ne orientation rek la ñu bëgg mais tey bu ñu toogee ba nen di jar cent franc wala cent vingt cinq mhm. je suis mais effectivement li nga wax habitude boobu mais dañ ñu dañ ñu cee forger mhm. et depuis lors aussi bu ñu mhm. ñëwee nos gouvernants depuis toujours ah les acteurs politiques ñoom ñëpp seen programme newul ci tout simplement cette décolonisation là ndax mbir mi du yem ci wax da nga koy nangoo jëfe yow sa bopp yow mi nga xam boo bëggee boo bëggee ñu nangu ko naa ma ne lan moo gënoon a rafet tey ku mel président Macky Sall nga jóge fële nga seet si ko en tant que président mhm. nga pare di ñëw mu jaar ak yow ngaay wut saaku ngaay wala en conseil des ministres mu ñëw ak saaku ngaayam ak dàllu ngaayam posetu ngaayam mhm. boo ko defoon tout simplement dina pousse su bëri et ni mu waree ci moom noonu la waree ña des noonu la waree ci man noonu la waree ci keneen mhm. donc il faudrait tout simplement que habitude yooyu ñu kase a cet avenir. Mm-hmm. Mm-hmm. daa mel ni instant yi temps jot na. Mm-hmm. mais je pense que rek ak crise euh, ukrainienne bi. Euh, bu perdurer rek euh, danañu sonnal bu baax a baax ndaxte ñëpp gis nañ ne jamono ji prix aliment bétail bi dafay yokku daal di jóge ci cent francs dem ba ay 21 000 francs CFA. donc ñëpp xam nañ ne actuellement avant élection législative yi danañ def de telle sorte que prix du yokku. mais après élection législative amaana dana am kii kii la. la vérité des prix mhm. maanaam dinañ ko appliquer parfaitement waaw fa la ñuy jëm ci crois mhm. bien donc di remercier bu baax a baax Pape euh, Latir Faye moom xanaa dinañ wax lan mooy nouvel ordre mondial pour téléspectateurs yi parce que léegi moom fépp fu ñu tourné rek c'est juste pour dire adduna <laughs> bu ñuy tëggaat xam nga am na lu ñu xamoon démb ak barki démb maanaam tey boo doon jàpp du point de vue militaire mm. Amérique moo jiitu woon keneen topp keneen topp keneen mhm. topp tey da ngay gis ne Russie daanaka moo jiite en fat euh, en fait le côté nucléaire ñeneen ñi am seeni programme yu ñu war a doxal mais en tout état de cause ce qui est sûr restructuration lañ toll ñu jéem a xool àdduna kan moo koy jiital ak ki nga xam ne moom mooy décider pour ña ci deso